rappeur MC. waaw mais ma ñëw nag li ma lay wax mi ngi ñëwaati de mënoo tontu tontu mënoo laaj laaj bi tontu tontu bi rek. yow kasi mënoo nekk rappeur waaw boo ma bàyyee rek ma développé. yaa ngi dégg tey jii dañu amaat beneen relève bu ñëw ci hip hop. Mhm. muy relève bu bees bi mhm. sama gel bi sama xarit bi maa ko bëgg raay ma fóon ma lañ fa nekkee. mais yow waroo wax loolu en tant que rappeur. li nag ah may émission bi danga nga ko yàq nag da ko yàq de. dafa am beneen relève bu ñëw ñoom lañ jël teg leen devant ñoom la ñuy teg ci télé yi ñoom la ñuy invité ñoom la ñuy teg ci rajo yi moo tax da ngay yaakaar ne rapport amatul te pourtant ña doon xeex démb ba léegi ñu ngi xeex. parce que ñun tey bu ñu demee ba xañ ñu antenne bi añ ñu lépp du ñu invité ci rajo yi boo yooyu la ñuy ñuy classante di saagante ñu leen di wutal ay promoteur di leen wutal xaalis pour ñu def lu ñu def ci seen poos ñoom ñoo rey hip hop bi ba mu dee parce que hip li ko tax a jóg mooy kaasal sa askan wax dëgg. parce que hip hop mi ngi juddoo ci tool yi Amérique. suñu maam yi ñu daan jàpp di leen fa yóbbu ñu fa lañ commencé def hip hop. boobu soo lañ doon def di jooy di wax ne li ñu leen teg dafa métti ñu commencé toog ci bopp ko ñi di ko wax di ko kaas ba mu jàgg ñu def ko ay son dugal ko studio. loolu ça fait 1970. d'accord yaa ngi dégg. ci lañ ko commencé di def ci son yi di ko wax adduna bi dégg ba dugg si Sénégal ñun ñu tey ñu jël ki ba suñ grand yi fi fekk mooy ñoom ay xumaan ay ñoom Fou malaat ay jom Gaston ay ñoom kër gi yeneen ak yeneen et cetera boo leen doo lim ay ñoom Daddy Bibson ñu ñëw roy leen ci yore léegi nag tey fi jamono tool ba mu dox États-Unis ña doon xeex xeexatuñu parce que seen réew neex na ba dox ñun nag suñu réew doxagul ñun ñu bëgg a def la ñuy def naan hip hop business la da nga war a woy loof da nga war a bañuñu ko mais du teebul bul fàtte sa askan pour sa askan soxla am na son yoo xam ne da nga ko war def pour sa askan Sadio Mané joueur la mhm. Arabie Saoudi la nekk mhm. day dem football mais bu Sénégal soxlaa day bàyyi lépp ñëw si footballal Sénégal bu paree delluwaat pourquoi rappeur yi duñ def loolu mais bu fekkee yenn grand yi mën nañoo bañ a waxtu ci hip hop mais seen temps da leen ko mayetul parce que yow diggante bi 2012 ñun ñu fa nekkoon ñu ci bëri amuñu woon jabar amuñu woon doom amuñu woon benn responsable ay célibataire ngeen woon bëgg sa réew moo taxoon nga wàcc dexee diggante bi am nga fi jabar am nga fi ay doom yeneen responsable tegu sa kaw boo yii nekk ci hip hop bi nga xam ñoom la dégg ñoom ñoo waroon a jël porte drapeau boobu mais duñ ko def ku ci nekk yaa ngi wut prox ndoolu leen ko ñu may ay millions nga def ci sa poste sa bopp la ñor askan wër mais ñii def ni defuñu hip hop seen bopp lañ fi nekkal. comme nag nag dañ fi nekkal seen bopp. la mhm. ñuy seetaan ci loolu. soo waxee déglu ma mhm. da nga soxor. da nga iñaan booy dañ la raw amoo tuus siiwoo kenn xamuloo loolu lañ lay wax mais du tee ñun dëgg dëgg bi ñu la war a wax moom lañ lay wax mu neex la mu naqari la booy ci bopp ñoo war a téye relève bi parce que gis naa ko mel ni tey dib dund gis wasul na ci àq mhm. te pourtant rapport peuple bi la te ñëpp xam nañ ko pourquoi yeneen booy mënuñu def ñoom mais fi la wax leen a siiw na drapeau am yàgg na Gaston ma ne la bàyyi ma nga naan ma Gaston Gaston ñooñu ay grand lañ boo yi laay waxal a a jël may la xam nga tey loo ko cuub na drapeau am yàgg na cela veut dire ci ñi nga xamante ni duñu comprendre ngaa ko cuub na drapeau am loo bëgg a wax foofu est-ce que duñu arrêté émission bi comme bu ma wax dama la wax ngaa ka taxawaay bi mu amoon ak taxawaay bi mu am léegi du benn waaw léegi boo mu bàyyiwul ma wax nu ma koy waxee. allez mën nga déglu wala mënoo déglu. dama ne la cuub na drapeau am parce que moom gis nga ko nguur lay àndal nguur lay bégee di def ay sanam yaa ngi dégg ñoom ñëpp ku ci nekk. ku ci nekk ci ñoom. tey waroon nga mën a taxawal askan taxaw boo xam ne ni ñu defee son yi di saagante ku ci nekk mën nga def son woon quatre heures wax ak nguur gi. waaw dëgg la parce que nit da nga ciy waslu àq yeneen bi naan euh, xeex ñett la. Mhm. man raa minkum munkaran mhm. fal yuxayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa saalika ad'aful iman bi ci njëkk mooy boo gisee loo xam naqari la ci sa réew wala ci sa dëkk wala ci askan wala lu mën doon loo xam naqari na te nga koo faj ak sa doole faj ko ak sa doole soo ko mënul faj ak sa doole nga faj ko ak sa làmmiñ wax ba ñëpp dégg la nga xam ne kii comme man nii may def tey ji mënu ma ko faj amu doole ji ma ko faj mais dinaa wax ba ñëpp dégg bañ xam ne maas mi wasuñu àq ah. soo ko mënul wax sa làmmiñ nga naxar la ko ci xol ba ñëpp dégg ko loolu yaakaar naa war nañ ko mën a def mais bu nekk tey di xaalis ci askan wi rek dajale booy def ay concert encaissé tey bu askan wi soxlaa duñ génn waxal askan wi même boo deful son nga génn def benn interview sax alerte wane na carrément lii xew si réew dee yi dafa war a jeex ndax bakkan du caaxaan bakkan du caaxaan léegi saa yu manifestation amee ñu jàpp ñaari booy til til bal yi booy dee. mais loolu du dëgg du yoon. mais tax man euh, attaque yeeg da nga soxor ak da nga iñaan ak booy raw nañ leen man tàkkuma woon bay fay. mais dama bëgg a xam ne man li ma war a wax booy ñoo war a téye relève bi grand yi def nañ li ñu war a def. 2012 ba xeex jotee wàcc nañ ci tali bi ànd ak ñun def ay sound kon man grand yi awma dara lu ma leen rapproché booy yi nga xam ñoo ci toll. téye affaire bi. ñoom ñoo ñu war dimbale. parce que tey jii comme ñoom ñoo nekk devant la scène ñëpp mm-hmm. xam leen mm-hmm. ñoom ñoo siiw ñoom la ñuy teg ci rajo yi ñoom lañuy teg ci télé yi nañ génn wax ci àq. xam ne hip hop dafa am lu tax mu judd mais boo demee ba dem fàtte base bi li tax mu judd defatoo hip hop. d'accord léegi dama dégg sànq sa biir wax nga ni ñun kenn invité wu ñu booy li ñuy invité ñii di mbalax ñii di taasu euh, lan mooy différence bi yéen ak booy. non déggoo li ma la wax parce que tey bu fekkee dëgg ngay wax da ngay képp ku nekkul nitu dëgg da nga koy déranger mm-hmm. mais fekkee nag da wax képp kuy caaxaankat di ko arranger te caaxaankat yi ñoo fi bari léegi yéenay wax dëgg booy waxuñ ko xool li askan wi dund nga wax ko waxal ko askan wi loolu la wax wax maanaam nga waxal dëgg sa askan bokkul ak woyu loof parce que woyu loof mën nañoo def yeneen sens yoo xam nañ ko jaay gis ci seen bopp parce que man euh, comme ni ko gars yi wax yow féeg nga ak réel nga yooyu yëpp tamit dañ ko war a dépasser esprit boobu mais du tee sound boo mën di def même boo koy mbalax waxal ci askan bi loo xam nit ñi dinañ ci mën a gis seen bopp xam ne kii kat ba as Sénégal tollee fii moom génnoon na ci wax lu ci ak euh, MC ñu gis ni am na son boo xamante ni génnee nga ko temps yi paase ngay woy ci eh, président Macky Sall naa ni ko président Macky Sall demal réew mi jàmm la soxla lu wund son bi. waaw son bi li ko waral parce que mooy li ma lay wax rek bu askan wi jotee da nga war a waxal askan wi. parce que son bu ñu neexoon def ko loof wut ci xaalis mais dañ ko def pour waxal suñu askan parce xam nañ ñun ba 2012 jotee defoon son bu tudd cooki fin 2012. ko am MCMAS cooki fin bi mi ngi YouTube ku neex mën nga dem tàppe nga xool wax ak Ablaye Wade xam ne ko carrément kilifa nga da war a dem waroo taar réew mi. Mm-hmm. na ma ko defoon Ablaye Wade naa ko defee waat Macky Sall. Mm-hmm. ñun dañu nekk ay artistes yoo xam ne même bu ñuy waxee dañ maa ngi naan ko ci biir jàmm gan ci sa askan sàmm bakkan balaa ñoo gaskan sa dem na rafet dem moom du defet ñi ngi jiite ñoo doyal ñoom lañ lay xamal dëkk bi tar gaa yi mar amuñ lu xontu xar kon wax ñu li nga nar troisième mandat dañ koy tere bind nañ ci téere kon bul ci weeree fii lañ lay xaare ne réew mi dal bañ a mel ne xal ñu tànn ko ñuy fal bëgg ñu dégg fetal askan baa ngi jooy yuux nañu wooy amatuñ dugub bu ñu soob ci gënn rongañ yaa ngi dal ci dënn soxlaatuñu xiif dañoo bëgg a giif lu tey ban wax bu déranger mais tey bu ko déggee dina xam li nga wax dëgg la parce que loolu lañ soxla soxla wu nit ñi di dee soxla nit ñi di rayante yàlla teral na ko jox na ko deux mandats nit politique na ba dee waxut musul dégg sax monsieur le maire musul dégg sax conseil municipal yow bépp post boo xamante ni ok euh, nit soxla na ko muy ministre DG premier ministre président assemblée nationale président de la république jot nga ko kon Macky Sall yàlla deseelatu ko dara. kon dafa war a dem mu bàyyi réew mi parce que réew mi du réewum ndono wala du ki fi toog moo koy tànn ki fi toog sénégalais ñoo koy tànnal seen bopp. a tànn. léegi dañuy tàggatoo nan nga gisee Ousmane Sonko bu yàlla bu ko yàlla joxee réew mi mu toog Macky la toog passation de service Macky Sall war ko jox lenge jàkkaarloo boobu. ah waaw ñu xa ne àdduna la rek fii moom loo fi gis rek répétition la amoon na fi wala am na keneen ku ko defoon bu ko gisul fii gis nga ko ci feneen mm-hmm. xëy na Macky xam na ne def na erreur a nit a ci dugal xëy na lii bu démb doon tey du ko def mais nag nit matul waaw ndax xalxu min dufin yàlla moo ñu bind ci ak matadi. bu passation bi passation sénégalais ak sénégalais lay doon rek Macky Sall ak Sonko benn lañ rek Sonko lii yàlla tuddoon na ko ci dundam mënu ci woon ñàkk natt la bu koy dara te nattu yi yàlla pour mu may la foog mu teg la nattu. waaw comme ñi ko gën. ëpp ko daraja muy yërënt yi muy wàll yëpp yàlla teg na leen nattu kon Ousmane Sonko bu ko yàlla tegee nattu daa war a sant yàlla parce que da cee barkeelu rek. d'accord euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen euh, suñu invité nekkoon MC Mass muy émission li ci biir li ma leen di faral di wax gis nga waxtaanee nañ fi jaar-jaaram waxtaanee musique waxtaanee li nga xamante ni aussi moom mooy actualité fi réew mi toll opposition parti pouvoir askan bi ak ñi nga xamante ni tamit ay mbokku rappeur am lañu lépp waxtaanee nañ ko loolu mooy li ci biir il faut ngeen commencer seetaan bi commencement ba fin. parce que ay surprise yu bëri MC maa ngi lay jaajëfal ci kàddu authentique prod di jaajëfal bu baax a baax euh, maam Cheikh euh, borom authentique prod réalisateur bu mag bi suñu caméraman di ñaan yàlla guddal fanam saa su ne ma dérangé ko. mooy infographie mooy def affiche affiche yi ngeen gis ñuy defar fii ci Sénégal yu mag yëpp. ba ci panneau yu gën a mag publicitaire moom moo koy defar kon daw leen gaaw ngeen ñëw si Didi mi ngi fii rond point sib si doom maam Cheikh kàddu tàggatoo gi waaw kàddu gi may tàggatoo mooy di la sant di la gërëm di sant waa Sénégal yëpp. Mhm. di leen nuyu di leen ñaanal jàmm ak di wax ne Sénégal ñoo ko bokk nañ ko defar mu rafet. d'accord waaw nañ ko defar mu rafet ñoo bokk ndey boo ko bàyyi ndax yéen bi moo ne rax ma mhm. su ngeen booloo yàlla dee def yërmande ci seen biir ñu moytu xeexu politique ak coowu politique parce que amul njëriñ amul sens ku ci nekk mën nga far fi nga far mais ci yar ak teggin défendre sa leader ci même ci yar ak teggin soxlawul xeex soxlawul xuloo soxlawul rayante campagne bii di ñëw maa ngi ñaan sénégalais yëpp nañ ko def ci jàmm ak salaam ku ci ne àndal ku la neex bu voté jotee votelal ku la neex mais yëpp na doon ci jàmm ak salaam parce boo fi gaañee nit wala nga rey fi nit wala nga def fi leneen nit sa mbokk nga ko def te ëllëg di nga ko lay ak sa borom te jaru ko di nuyu waat Parcelles Assainies 1 bu 26 di wax ne sénégalais lépp lu fi wax nga xam ne jaadu ñu xam ne du ñun yàlla la lépp lu ñu fi wax tamit jaaduwul nga xam ne suñu matadi la ñu ngi la koy jéggulu waaye du teel wax rek pour defar moo ñu tax a jóg jéggulu ñëpp bëgg ñëpp jaa ngeen jëf wa salaam. Euh, di di gërëm bu baax a baax képp koo xamante ne yaa ngi doon bàyyi xel ci authentique prod lépp loo xamante ne actualité la bàyyi leen xel ci authentique prod nee naa leen bëgg nañu un million d'abonnés balaa korite gi di ñëw incha allah wala après sax korite incha allah un million d'abonnés pourquoi pas Sénégal mën ngeen ko seen réew la télé bi askan bi la kon nag télé bi yéen ko moom. jàngeen jëf ak DJ Chat Show MC Mass Cheikh ak Didi jàmm ci yéen Sénégal